ça fait que nga xam ma ma xam la mu ne ma non man moom xaritoowu ma ah. ko yow na ku fuuy nga comme ah. xaritoo woo nag manit sëyu ma mu ne ma kon baax na Malick coupé ma coupé fu cinq six heures France jotee Malick dina ma woo su ma woowee génn këram rek Malick man lay njëkk woo te Malick su ma woowee liñ naan gis nga àddina jox nit confiance dafa doy waar te jigéen lu ko nax dafa yomb. man oo oh, bi ma Malick di woo six heures du matin mu génn këram dugg biroom bu duggee biroom boosam la àndal bu paree ci boosam restaurant lay woote ñu indil ko añ biroom mu añ fa su paree summiwaat blousam solaat jóginam hiver la woon taalaat otoom duggaat këram ñuy wax ba ma gëmmantu ne ko ba suba hmm. confiance bi laa am ci Malick ne ah pourtant moom kat il est responsable. su ma woowee fajar biroom lay dugg te du coupé ba ma nelaw. Hmm. gisuma ko ci benn ñàkk fayda. chaque jour mu ne ma ndaw si pare woo ma ne ko ah man li ma wan bu fekkee ne mooy sa vrai jikko. Hmm. franchement. man neex nga ma. ma ne ko nag neex nga ma du bëgg naa sëy ak yow. mu ne ma man ndaw si nii laa mel. munoo man awma benn problème man nii laa mel man tamit wax dëgg fa yàlla am naa frère frère ma bëgg ko ci comportement bi muy yore xëy liggéeyi wàcc dugg këram ndax man dama bëgg nit koo xam ne da ngay responsable téye sa tànk téye sa loxo téye sa gémmiñ man lii rek laay xool ci nit ma gis ne ku bëgg njaboot la chaque minute maa ngi koy dégg muy dugal këram ay dépensam ay xaalisam comme man ni ma mel ci sama njaboot man dama ku bëgg njaboot ma bëgg la mu présenté ma yaayam ne ko yaay dama gis ku ma bëgg ko tudd Amina Poté war nga ko xam yaayam ne ko waa dama koy mu ne ko man kooku rek laa bëgg yaay. yaayam nag moo def différence ma accordeel ko mariage bu gaawee noonu. Ah. ndax man ku ne mën naa ku ne mën na maa nax ci yaayam. Mhm. yaayam ñu def appel trois mu ne ko yaay Amina ngi si ligne bi yaayam ne ma yaay booyam na nga def. olof bi setul ma ne ko maa ngi ci jàmm sant bi mu ne ma meng ma ne ko man suwaay bi ñu jàmm sante mu ne ko yaay kii laa bëgg a takk mu ne ko bu gënee ci yow Malick yal na nekk sa jabar mu ne ma sama doom la sama xarit la mu ne ma maalikam na ne ko luy maalikam maalik mu ne ma mooy sama maalik sama maalik ko ne maalik lan mooy maalikam ci appel bi mu ne ma mooy sama maalik maire bi ne ma loolu mooy sama maalik Mm-hmm. mu ne ma ndax man ñaar ñu góor laa am. Mm-hmm. kenn ci gaañu na yàggul dara. Mm-hmm. mu ne ma ma dese Malick dong te Malick fekkoon ma tey fii ma dëkk fii laa mës dëkk am fi ay néegu ñax am fi tool bu may jaayee bisaab ñu ma koy jaayali mook magam ma leen ciy dundal. parce que Seydina Mouhamed maire bi dafay wax loolu kali sama rongo ñuy tuuru. macha allah. mu ne ma man de ku baax ku ma dul taqaleeg sama doom laa bëgg hmm. ndax ñaar lañu woon kenn ki gaañu na te kii sama maalik la maalikam bu hmm. baaxee te du la say waajur maalikam tëyal léegi li indi ma bëgg maalik bëgg yaayu maalik bëgg ay doomu maalik maalik sëyaluma ko ndax dama ko nopp ku ko bëgg laa mais dama dama ci dugg ndax ne naa gaaw récupéré ko balaa beneen jigéen di ko jël ah. ak ni mu mel di ko taqaleeg yaayam fekk na yëpp bañuma ko ndax wax dëgg fa yàlla nit ko présentable la ku bëgg lu baax la ci boppam mais kàddu yooyu yaayam wax billaahi wallaahi wa man damay yërëm dooga nopp ah. mbëggeel dëgg ku ko xam xam ne koo sëyal am na loo xool ca moom ba yërëm ko nopp ko nit dina am lu ne gàññ ba pare nga ñeewantu ko maire bi ne ko man daal maalikam man ndaal sama maali koo bëgg bëgg naa ko mais bëgguma kenn koo xam ne daf lay tàqaleeg man ndax yow rek laa am. Hmm. ci laa jël li ma doon xalaat ci Malick temps beeg ndax ku baax laak ku bon laak day dorogeeg day sàcc yépp ma jël ko lem ba mu jekk dugal ca mbalit ma décider koo sëyal te yàlla tax ah. ne bu ma duggee lu ma fa fekk lu bon bu dee nopp na ma danaa fexe ba wàññi ko fexe mu nopp ma bëgg yaayam gën a uuf njabootam lii rek ka ma dugal ci Malick. lii lu si nit man. barke Seydina Mohamed. ma ànd moom nag wax dëgg fa yàlla ma accordeel ko mariage ñu may ko jabar xëy na mën nañ jàppante ci yiy xew ci internet yi mais Malick ñi ko xam dëgg ndax jabar mënul seedeel jëkkër hmm. moom daf ma naan yow dooma faral ma ne ko man duma làkk doom duma làkk jëkkër man doomu làkk kat laa lépp ci digg bi rek dama naan ko maalik am ngay qualité yu ma neex mais dangaa bari defu hmm. defa Malick du dara lu dul ku ko wokk mu màtt la dëgg ku mën na wàcc léegi yor vingt mille dollars ci poosam nga nax ko nax comme xale lekk ko hmm. amul yooyu problème mais bu la yàlla bañee ba nga def ko lu tuuti xolul ku taxaw ci adina ku bawul police yi ci dekk bi bawo kenn ndeysaan macha allah lii booleeg Malick allah donc gars yi ba légui rek macha allah ñu bàyyi ko mu xawa noy tuti na ndox yene nga suivre live bi bo ba légui yaakaar naa ni comme ni koy waxé rek li Amina Poté nek di len wax bu len intéressé wu len heure bi dem ngeen bu yag parce que ñu ngi doore ci ben nit ba deux ba trois jamono ji ñu ngi si presque douze mille personne toog di seetaan c'est parce que lu ñuy wax intéressé na leen nanu continuer di tapoter rek ñu xam ne nag wax dëgg fa yàlla na Poté xam na ni tey ndeke sénégalais yi am na fu ñu ko teg te respecté nañ ko te ñi ko xamutoon nag ba ñu déggee tey jaar-jaaram ku ko nawloo it à partir de tey di nga ko naw parce que lii rek la ñuy wër si jigéen jigéen lan mooy sa taar mooy nga sëy jigéen ñu bari ñu ngi Sénégal di woote ay mannequin lañu di woote na dañoo am rafetaay di woote nag ay star ba bëgguñu sëy mais li leen Amina Poté wax wax na leen ko fu mu jaar ba dugg si sëy ba yàlla weddi ba tey jii bu ko neexoon mu ne pare na si góor bu ko neexee chaque semaine mu ñëw Amérique wala Japon wala fu ko neex ci àdduna bi fekk du am jëkkër gis nañ ko Sénégal nag wax dëgg fa yàlla mais moom mu ne ak jëkkër lu mu mënti mel bëgg na sëy bu fekkoon jëkkër gi naan katu sàngara la sax dina def le tout ba génnee jëkkër googu di naan sàngara loolu si nit mën te mu wax leen nag nan la def ba xamante ak Malick lan moo andi sëy bi. dama naan sama doom duma la juger samay mbokk duma leen juger jëkkër ci nob la di la contrôler laay yem mais nit kenn mënu ko xam. Mhm. mais lu dëkk rek dëgg la lu dëkk. dëgg la. Mhm. man avant ma fi ñëw li maa Malick def ci dëkk bi mënuma ko xam parce que duma ko gëstu parce que. sëy yàlla tax moo ma ñor. dëgg. parce que man ku may àndal jéemumaa xool sa passé te man dinaa fexe ba présenté la sama paase ndax damaa fier ci sama passé. man noonu laa bëggee góor gu ma déglu ma wax ko sama passé. mais duñ la jox sa chance ndax dañuy foog ni. genre ko nan ko man sama paase mune man sa paase ki yuma de ñoruma de ki nga don moma ñor mais man man dama bëgg ku xam sama demb ndax sama mm-hmm. demb man moma dakal sama tay. dëgg. macha allah vie bu stable xalé bu jovial yaru bëgg ay mbokkam. yeewu ndekkee ndoog sa famille. aña ndoog sa famille kafree rétan tok ci buntu kër gi ba tëdd jot ngeen tëdd motax man sama passé awma luma ci ragal a awma ben passé bu ñaan mais tamit bama xamé né yalla nit du nek jambar yalla lay dimbali dama nangul nit ñi am passé bu négatif sen passé mm-hmm. ba taxna Malik man xawma passeem mm-hmm. duma nop kenn wala ma bëgg la du sama dom du samay mbokk man duma ne kenn yalla ngi tuggu suma la mm-hmm. mais lima dund ak mom la mëna sédé deug man kenn mënuma ñëglo ci sey bama ma ci damay sey te yalla tax mais ci la rek lay sey deug nit di nga am lo ban ci mom way di nga am lo bëgg ci mom ba may dugg ci mom dégg na lu baree bari hmm. mais man lim li ma nit ñi di wax ci Californie ñoruma ndax man dama deg giwin te duma giwin Deg bandi te xawma luy bandi deg sangara te musuma ko essayer ci adina barki dem bañ demee ben restaurant si laa naan jus bi mu hito ci laa naan mu xitoo mu xaw a wex rek ma ne ko Malick lii dafa am alcool leeru ma ndax am na wala amul mais loolu tax na ñemeetuma waat ni musuma naan alcool damaa ñam mu wex rek ma ne ko Malick lii dafa weex mm. te xet gu bon googu yëpp teg nañ ko ci sama kaw te xam naa ne amul moo tax man duma la juger Kaliphone man duma juger nit ba keroog ma nga gis lay jàppal nag ci ngay xam kan nga nekkal ndax macha allah moom bu taxawé né ñuulul ñaawul ñakul masta man mi nga xamné jigen gënuma adorable man gëm sama bop taxna sey rek la bëgg mais buma gisul luma xam kèn duma jël ci kalifon malik baxna na li ñuy doyé goor min ci malik Moy Malick saa yu yeewoo cinq du matin jug di dugg ci hmm. douche bi pour sangu sama xol bi day naqadi te Malick musul tàrde liggéey fajar gi muy yeewu di liggéey yi rek damay toog naan man su ma yàlla mënoon defal xéewal ba mënuma si dara fajar mu dem liggéey génn kër gi Kaliphone Malick lu mu am ay mbokkam a ko lekk buy leen wax Malick lu mu am Kaliphone ay mbokkam ñoo ko lekk. Hmm. Malick am na jom. Malick bëggul ku ko yeb. nangu naa liggéey alalam. Hmm. ba weer dee mu jël ko jox ko jaam yi. lii laa xam si Malick. am nay défaut nag comme man comme yow comme ñuy seetaan. waaw waaw. mooy Malick li mu def. xolul samba ngi taxaw xolul demba ngi taxaw daf koy def. personne n'est parfait. personne mais ba ma yu bëree bëri wax dëgg fa yàlla. ku xamoon Malick démb. ak ku ko xam tey xam xamal naa ko ne ko Malick yow doo américain. commencement bi su ne ko mais yow Malick yow doomu julli doo américain mu ne man américain laa ndax seen passeport ma ko non dañ la ko aal yow yoroo passeport américain boo xam yow. du juddoowoo fii mm-hmm. juddoowoo fii su ne man waa maa lii maa ma ne ko Malick mu ne ma ne ko gisoon nañ fi Ndiouga Kébé te ñu ko ràññee bariwul gisoon nañ fi Djily Mbaye te ñu ko ràññee bariwul mais gis nga nit danga koy nangul souvent ni ko yàlla bindee laago la du dara nu mel xëy na jaar-jaaru démba metti gu mu metti ak nu mu sonnalee woon ndeyam te ku tekki bëgg ngaa woon say noonu ndey say noon ni waaw yàlla ñëw na mm-hmm. te amul jotu chaque jour mu jël euh, avion dem Sénégal ba nit ñi xam ne ah kii de ndeyam fii la sonnee woon dëgg la building yaa nga fa macha allah ku dugg këram xam ne njabootam a ngi ci jàmm mais ku ci nekk kali boo tukkee yàgg lay tax nga ñibbi mooy ña nga woon xam ne ñëw nga tekki nga. mais da ngay def nànk-nànk ndax ah, euh, bant bu dëgër boo koy jubbanti boo deful nànk bu ndàmm. am na yu bari yoo xam ne wax dëgg fa yàlla. du sama njàmbaar mais yàlla dimbale na ma ci. mi ngi wécceeku ndànk-ndànk mi ngi changé. parce que parce que man damay gis nit ñi souvent lu ñuy wax Malick Danoone dafa bëgg wanew dafa bëri tiitër. parce que man dama yaakaaroon defoo góor buñ koy wax kii dafa ñàkk jom parce que lan bëggul liggéey wala kii dafa ñàkk jom parce que day dóor jabaram kii dafa ñàkk jom parce que day bàyyi jabaram du ko teral di dem di doxaane ji teral yeneen jigéen ci biti kii dafa ñàkk jom parce que réussirul viom mais kii dafa ñàkk jom lan la ñàkkee jom day sanc lu rafet di wane ne am na xaalis est-ce que loolu ñàkk jom c'est que euh, Kali loolu du ñàkk jom mais bu lu ëpp tuuru lii may waxanteeg yow rek am na ci ñoo xam ne ñi ngi jooy ndax kontaan am ci ñoo xam ne ñi ngi may apprécier mais tey am na koo xam ne mi ngi jàpp ni maa ngi waajal victoire du ko neex ndax maalik bu dàjjee paquetu xaalisam di ko baatre kooku moom la concerné man duma ko def hmm. ku ne ak ni ngay xalaatee parce que lépp étape la kali am na loo xam ne dangay xool boo yi toll ci nga xam ne kali yow romb nga étape boobu xëy na moom ci étape bii la toll am na ñu fi jaaroon tey baatareetuñ hmm. soit àddina da leen di jey ñu ñàkk li ñu am wala seen liggéeyu ndey leen ñu dem ba dépassé lii hmm. ne ak ah, man de lii booy temps rek temps la nga dégg nit ne la man lu ma deful amul mm-hmm. léegi man mi jabaram li ma mën mooy di naxante mm-hmm. parce que nit boo ko bëggee bousculer da ngeen di sëy mën na laa jéppi commencé wàññi mbëggeel seen diggante jéppante am te sëy bi yàlla tasagu ko ndax sëy yàlla mi ko takk rek a koy tas mm-hmm. nit ñaa ngi tribunal di laaj papier divorce munuñ cee jot ay at nit ñaa ngi ci kër yi di xaar seeni baat nit ñaa ngi sëy ak seeni jëkkër kenn mënu leen a fase kali yaa ko jë dans la vie yàlla kese moo fi nekk boo ko gëmee nag doo daw doo ragal doo tiit doo sonn Malick bindul boppam